liggéey bi bu ngeen gisee liggéey bi ñu nekk fii ci Touba Apix 2 ah liggéey bi ci kër gi nga xamante ni kër Serigne Saliou Mbacké daara ji Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi moo koy liggéey fii def ko daara Serigne Saliou Mbacké muy kër Serigne Saliou Mbacké tey jii ñu ñëw fii tey di ko kuule yàlla dogal na ñëwoon nañ fi teg xeer wi fondement bi di ñu nekk ci liggéey bi boobu ba léegi bëgg ci toll fi war a kuule ngeen mbokk taalibe bi yëpp fu nekk. ab taalibe bàyyoo ko na fi maanaam ñëw fii ci Touba Abyss ànd ak bi liggéey bi nga xamante ne bii muy kër sëriñ Saliou Mbacké moom na ñuy liggéey sëriñ Saliou Mbacké fii ci Touba Abyss gis ngeen yi gis ngeen mbooloo mi nga xam ne liggéey baa ngi nii kon nag lii ah, ñu ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim ñu ngi ñaan ci bàq suñu Saliou Mbacke yàlla na dem bi loolu day bëgtam sëriñ bi la bëgtam sëriñ Saliou Mbacke la kon nag ñi ngi ñaanal sëriñ Ousseynou Kane borom xalima gi moom sëriñ Saliou Mbacke suñu borom kattanal ko te dooleel ko jàmbaari sëriñ Saliou la te du du dalaw de day roy sëriñ Saliou Mbacke ba sëriñ Saliou Mbacke tàggam de eh, xoolal sëñ Ousseynou Kane borom xale mag yi teg tànkam di liggéey sëriñ Saliou Mbacke sëñ Ousseynou Kane doo ko dégg fenn sëñ Ousseynou Kane doo ko gis fenn lu dul rek mi ngi liggéey sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacke di yar xale yi di leen jubbanti di leen jàngal xasida ak alxuraan di leen teg siraatal mustaqim ku xam sëñ Ousseynou Kane xam ko ci am mbaax xam ko ci am njub xam ko ci am liggéey nag jëf la rek waaw ndax sëñ Ousseynou Kane dafa ne nit ku baax ku yaarame ku bëgg sëñ ñun jëwriñ yëpp àndandoo nañ fi rek néew néew ci liggéey bi rek ñun daal liggéey mënu fi yéen waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax a baax a kon yàlla fi yàgg ci ate leen ci liggéey bi na ñëpp dàkku rek ñu liggéey liggéey bi dina ñaan sëñ Ousseynou Kane ñi nu sëñ Saliou indil ci suñ quartier bii ma di ci sant yàlla bu baax di kontaan ci moom di bég ci moom di ñaan yàlla may ko wér ak fan wu gudd lii nu sumb ci koñ bii yàlla ak sëñ Saaliwu ci ba bañ am ci lu kawe suñ ci liggéey ak sëñ Saaliwu Mbàkke bii sama xol sedd na guy may ñaanal sëñ bi wér ak fan wu gudd jërëjëf ba apis waa kër waa Tivaouane Peulh ñeenti daayira yëpp yëpp a ji fi kon nag sëñ aussi dana yàlla kanam jërëjëf wax dëgg yàlla daal bàyyi ñëw. liggéey bi rek leen rek moo ma jaaxal nan ngay doonee taalibe doon taalibe war a ci mag njëkk luy ak taalibe fanaanoo ndigal li mën a xëy dimanche nelaw ba 9h 10h bëgg ñëw ci coulage jëpp fajar la ñu waroon yow ñëw ci coulage bi suñu doon ak yaafuus na ba léegi ciment bi yéegal dañ xoolaat suñu doxalin xool suñu bopp xam ne matatu ñu ay murit kon li ñu war rek mooy sëñ Maal ko tan ñaan mu nangul ñu ko rek ñu demee ci yéene ak pasif daal rek tax bu ko defee lépp lu ñu ci fasal ñu mën cee jot incha allah rabbi waaye daal daanaka kër gi moom maanaam kër ñëpp la kërub lislaam kër borom Touba la kër Serigne Saliou la kër képp ku bëgg lu baax kon ku doon ku ne rek am nga fi cër woo xamante ne war nga fay ñëw jàpp ci bi naan rek tax nga xamante ni baax rek lañ fi fas yéene samp mu wéy nekk taalu lislaam woo xamante ni. ñi sant bu baax bu ñu yàlla dimbalee bu ñuy fekkee tournage yu kër Serigne Saliou di ñaanal sëñ Ousseynou Kane borom xale bi yàlla bàyyi ko fi guddal fanam wéral ay cëram te lafal ko cat. xam ne liggéeyal sëñ sëñ Touba sëñ Fallou rek ko ñor loolu la ñaax ñun taalibe yi ñi may ñaaxaat sama mbokku taalibe yi ñuy dolli góorgóorlu bu baax waaw ndaxte lépp moom la rek lépp liggéeyal sëñ Fallou la liggéeyal. dañuy sant yàlla bu baax waaw. ba sëñ bi xam ne maa ngi moom gis nga rek ñoo ñëw ci Koungheul. sëñ Badou. kontaan nañ lépp yéen waaw léegi moom jaajëfati kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf sëñ Badou merci.